xam nga man awma camp bokkuma ci benn camp politique mais dama wax ni réew xaw ma ko yàlla di fal am na lu ma namm nag mais xaw ma ko yàlla di fal mais wax naa ni booboon am na ku yàlla ki yàllay fay lu mu fal li ma koy digal mooy na fexe bët ñett ba ñeenti at yi di ñëw dund sénégalais yi gën a ëpp yërmande mais loolu yoon la am pour que dund sénégalais yi commencé yërmande ëmb ko yoon la am xam nga tey quatre-vingt pour cent wu li Sénégalais yi di dunde dañu koy jéggaane jëlee ko biti réew di ko fi indi mais gis nga fee boobu bu nu ko saafarawul mais ni réew mi dunde du nekk ci sunu loxo parce que ku ne lañu ne jaayee ci biti boo ñëwee itam la nga ci mën a dolli sa sa sa coono faju rek loolu nga koy mën a jaayee mais nañu commencé seet nu ñuy wàññee importation yi ci ci denrée de base yi un sur trois ans ñu ni ñu wàññi bokk du ñu dugal ci réew mi ci lu ñuy dunde lu ëpp soixante pour cent mais vingt pour cent yi nag production locale jëm ko satisfaire mais suñu ko deful kilifa yi mën nañu am yéene bu ne mais bu dee Sénégalais yi la ñuy dunde quatre-vingt pour cent yi dañu koy jële bitim réew kooku dund réew mi du sotti kooku moom du ma économiste boroom xam-xam mais lii ma leen wax nit du ko fi jël nanu wàññi jëndi biti te seet lu nu defe fii lu ñu mën a defar mu jariñu ba ñu fabriqué ñu booster sunu économie nga xam nga àdduna bi état mais état dootul dootul produire état du créer ressource état dafay réguler rek mais état mën na créer nag ñoo xam ni ci ñiy jox suñu économie doole ci la du bokk du teggin sax may toog fii di ko wax parce que du sama habitude mais le le célèbre milliardaire nigérien Dangote du mu ngi fi yor usine fii ci Sénégal usine cimenterie mais Dangote kii laa fabriqué na ma na ma ko baal du teggit ma du ko wax mais c'est Obasanjo Obasanjo moo lancé ku noonu ñu jox koy kattan jox koy jumtuwaay yombalal ko nu mu taxawee ba la muy liggéeyee am jeexital ci produit intérieur bu dutu réew lañu ko def seet ñi seen taxawaay mën a dooleel kattanu réew mi te nu gëm réew mi ñu kattanal leen jox ay bunt ñu liggéey euh, li ñuy wax ñu apporter un plus ci sunu PIB yooyu bu nu ko yaatalee rek tabarakallah sunu économie dafay gën di am doole te la ko yëkkati du doon lu ñuy jële bitim réew mais kattan ko ñu defare ci biir réew bi lay doon ah ngeen baal ma parce que ku ne expérience ba ngay dund ña nga bokkal réew bokk ak ñoom taxawaay war nga di partager ak loolu mooy tax man su ma amee occasion yu mel nii te kilifa yu mel nii toog fi xaw nu wax ko gënuma leen ko xam sax parce que seen liggéey la ah te itam ku ne nga nekk yaa ngay jéem def lu stabiliser njaboot ga nekk foofu mais nag lii ma leen wax réalité la nañu wàññi importation yi jéem a tabaxal suñu bopp lu nu lu nu lëg soo demee ivoirien yi ñoom du nekkee mburu seen banaan yooyu ñu lakk ak yii la ñuy dékkee ah, xëy na ñun mburu nag ñam bu universel la parce que ñeent ñam moo dundal àdduna bi li ñuy wax mboq li ñuy wax blé li ñuy wax ceeb ak li ñuy wax dugub dund àdduna bi ñeent yi moo ko ngàbb te gis nga li ma leen wax nañu seet ñu gëm réew mi jox leen ko xam ngeen Bill Gates Bill Gates bi sos Microsoft bi ak euh, euh, logiciel yi aju ci ordinateur yeeg yëpp est-ce que xam nga mu ngi def taxawaay bu bu am solo te mooy dañu commencer di recenser li ñuy wax les graines d'origine xam nga léegi pepp yi ñuy dunde du du pepp cosaan dugub bi ñuy dunde léegi ceeb bi ñuy dunde blé bi du cosaan bi variété hybride la ñaara tax ñu sos ko bu njëkk bi mooy climat yi ñu fexe ba eh, bu ne mën a dunde ci climat yu bare bare bare ah. ñaareel ba ñu ñu ñu ñu ñuy wax nu def ay variété active maanaam ku daan bay ci ñetti weer nga góob boo bayee ci fukk ñeent fukki fan ak juróom nga góob mais loolu bu nu toppee pepp cosaan bi duñu ko man mais itam bu nu toppee façon bi nga xam ni bëgg gaaw a jaral gaaw a jaay moo ko sabab des na ci bépp cosaan dootu nu ko am xam nga lu mu def moom Bill Gates fële ci Groenland Groenland mooy fi gën a sedd ci àdduna bi fa ko def ay bunker nga xam ne ta tabia bi du soppiku foofu ñuy commencé di sélectionner graine d'origine yi di ko yóbbu di ko denc foofu ma xam ni ndegem ñoom xëy na nañu yàlla ay humaniste lañu ay boroomi xam-xam lañu ndegem ñoom ñooy yegg ci foofu bëggul àdduna bi di am lu gën a ñoŋ ba tax ñuy def effort yooyu mais ñun ñi yaakaar yàlla yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa mais am na effort yoo xam ne ci war a jiitu ñëpp moo tax kooku lu may wax la parce que ci réew mi laa bokk te dama gëm ni Sénégal eh, am na bunt yu ko yàlla mën a ubbil ci yokkute mu ngi feeñ ndànk-ndànk nag mais naka lañ koy organiser nag ah dégg ngeen ma wax ko ci benn waxtaan mat na cinq ans ci pétrole bi bu ñu e, bëggee éviter mu bañ a jur li ñuy wax malédiction du pétrole du Angola ci ñu gënoon a am pétrole ci Afrique la bokk ani pétrole ba di di Gabon ci ñu gënoon a di di dund ci alalu pétrole la bokk ani pétrole doo demee Congo noonu soo demee faneen noonu est-ce que ñun dañu seetaan bàyyi ba di woyofal yenn yi ba xëy nu perdre ko wala dañuy wuti modèle parce que wàllu gérer pétrole modèle bi ci gën a mëtale muy pays Scandinavie diggante Danemark Suède jëm Norvège jëm Finlande nga xam ni ñoom seen pétrole ci biir géej gi la nekk génn ba mu gën a jafe mais li ñu mucc ci problème mu amul benn réew bu ko ci mucc du Arabie Saoudite du béyu góor bi li nu ci mucc kaneen mucc ko ci dañ ci deme xel mooy liy génne ci pétrole bi dañ ko séddale ñetti cër cër bu njëkk bi dem ci dundu réew mi état bi nu muy organiser woo ba dundu réew mi di di yéwén am na parti buy génne ci pétrole bi ci loolu lañu koy dugal am parti boo xam ci pétrole bi dafay contribuer ci lu ñuy wax transition énergétique parce que man wax naa ni war nañu mën a dem ba petrole bi contribuer ci énergie alternative yi ah ñetteelu cër bu mujj bi mooy xaalis bu ñuy denc la parce que nee nañ pétrole bi benn génération rek moomu ko kon ñuy ñëw téeméeri at ci kanam ñaar téeméeri at ci kanam war nañu profiter ci pétrole bi réew may am ah, moo tax ñetteelu parti boobu dañu ko denc ma ne nag il faut ku bëgg a liggéey nga am référence ah ngeen baal parce que fii weccee na suñu digganteeg ñi amee administration waaw ñoom li ñu xam dañu jox nu fas mais ñun itam lu ñu xam dañu leen di jox bu ñu demee ñu yóbbu parce que ñoom ñu tëre leen ah te xam naa ni réew mi mën nañu ko bokk mën nañu bokk di ko waxtaane bokk di ko tëral parce que man awma benn hostilité ci seen côté awma camp politique nag waaye nag awma benn hostilité ci seen côté moo tax occasion yu mel nii su amee la ma xalaat mën naa ko wax ouvertement ah sëñ Mansour nga jéggal ma parce que itam ah daara yu suñu mënul di mën di am nu nuy wecceeg jokkalanteeg ñi nga xam ne ñoo ñuy tëral ah du doon dialogue bu bu bu bu jariñ te dama dégg Serigne Cheikh Tidiane si radiyallahu mu wax loo xam ni bariwul fu ma ko dégg ku ko firi parce que bi yonent bi sallallahu alayhi wa waxee ni mam badaa jafa maanaam boo amee culture nitu àll ma du du du wàcc man waxuma ko yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax culture àll xam ni ci naaj ngay xëy ci naaj ngay gont liggéey bu ànd ak coono ngay def wut wax ab euh, culture àll mu ne amul finesse ma dégg Serigne Cheikh mu ni ñu koy interprété boobu ba léegi mu ne mais américains yi ñoo dégg li yonent bi sallallahu alayhi wax mu ne mille cinq cent ans après mu ne américains yi réglé nañ problème boobu ñu ni ko naka mu ni fexe nañu ba fu nu sampe université ci dëkk teeru samp nañ ko ko ci dëkk kaw su ko defee xawma équité territoriale dugg ci amee doxalu doxal doxalinu gouvernement bi lépp équité territoriale dugg su ko defee kii ci kaw du ñeeti dara kii ci teeru parce que li ñuy jàngal kii ci teeru bi rek ñu ngi ko koy jàngal mu ni nag niveau réew bu ñu demee ba ñu ko séq seen niveau tolloo mu ni defar réew ma warul a jafe mu mel ni loolu rek lañ ni woon nanu ko partagé waaw ah, li ma sama doomu sëriñ biy wax bu ma ko tooñee ba noppi mun ma sa wax boobu moom partagé naa ko waaye ñun itam ñu ni woon nañu ñëw partage ko ah wax dëgg yàlla ñëw fii sëñ Mansour sant nañ la sant lañ njaboot gi waxal nu ko